topp waaye rawatina ànd bi ngeen di ànd ak ñun su suñu plateforme yaa bi nga xamante ne nag moom mooy Sunugal 24 ñu ngi ah, ne dañuy suivre euh, ci plateforme bi nga xamante ne nag moom mooy Sunugal 24 waaye rawatina foofee ci Facebook ba moo euh, baax a baax baax a baax a baax tey nag a seq ki nga xamante ne wax dëgg fi yàlla euh, jamono ji gis ngeen vidéo bi def buzz comme ni mu ko daal di waxee woon moom mi nga xamante ne wax dëgg fi yàlla déclaré woon fi xaas bu bari ah, jamono jii sax euh, wax dëgg fi yàlla xaalis boobee feeñ na nag waaw gis nañu borom waxtaan la nag boo xamante ni euh, dinañ ko daal di léegi léegi ci suñu gaal 24 moom nag balaa may ñëw ci saale dama koy bàyyi mu ne internet suñu gaal 24 rek Pape Pape Pape Gueye la maa ngi lay maa ngi lay siyaar. waaw ah, delloo siyaar moom. Mhm. jërëjëf Serigne Touba. Mhm. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mhm. di jiital siyaar bi ak nuyoo bi al muntaxa mi fi toog jotaay Serigne Touba. di ko ñaanal naal yi mu naal ba ko liggéeyal sëñ Tuubaa nu yéen a ngi toll rek yàlla na ko kàttan bépp ak mën-mën bi noonu la ñu koy ñaanalee kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi ah di am mbégte bokkaat ak yow plateau bi yow moom bu ma bokk ak yow plateau rek damay am mbégte daal damay firi waaw ah, ma nga noonu hmm. ay ci mi ngi noonu Pape Gueye Sikarou la moom nag wax dëgg fa yàlla euh, dafay ñëwoon dem wala barki démb déclaré fa somme xaalis ah, mën nañ ni xaalis bu bu bu takku waaye ci loolu nag la ñu jëlaat ay kaddu ki ni ki moom xaalis bi borom xaalis bi feeñ loolu la waxtaan la boo xamante ne nag dinañ ko waxtaanee léegi léegi waaye damay bàyyi Salim mu nuyoog internet suñu gaal 24 rek Salim maa ngi lay jaar. maa ngi lay jaajëfal. bàyyi la bëggee bu baax. ayca euh, am mhm. mbégte contentement. Mhm. nee naa leen euh, diggante 24 heures wala 48 heures yi macha allah def na toile sur les réseaux sociaux lu ci mel ni YouTube ainsi que TikTok gaa yëpp ñi ngi jël aussi di ko statut ci benn fee boo xam ni euh, mën nañoo wax ni am na fi ci diggante euh, euh, euh, for gim fi gim fi for benn koppar gu xaw a gu xaw a takku mën nañ koo wax waaye nag euh, ba mu ñëwee euh, joytu ko fii nga xam ni mooy site bu mag di Sunugal 24 jàkkaarloo di jëmoo defe naa ni aussi euh, matul des heures borom feeñ na ba koppar gi nga xam ni faroon na ko dem na ko delloo ki nga xam ne moom moo ko moom di ko jaajëfalaat bu baax baax ñu gën ko xam ci Pape Gueye Zikroullah hmm. waaye mu am polémique yu bëree bëri yoo xam ne am na ci biir diggante 24 heures nga xam ni nee naa la def def na doom def na toile sur les réseaux hmm. yëpp polémique yooyu yëpp dinañ ko waxtaanee tey ci biir émission bi bu ma waxtaan bi euh, da nga fi ñëwee sa sa sa sa tànk yu jiitu. Mm-hmm. da nga faroon xaalis. Mm-hmm. léegi nag nga euh, bi feeñ na. Mm-hmm. na polémique ñu bari ngi commentaire naan non nangam sekk c'est-à-dire waxtaan la boo xamante ne dañ ci daal di xuusin. nan nga def ak naka nga def ba borom xaalis bi wan ne la nii sama sama xaalis. waaw dina am mbégte sax ci leeral yi. parce koñ bi nga xam ne fa laa doon dem muy Sicap Foire. benn yaay booy laa fa doon yóbbul. yóbbanteem ma koy siyaare waale Yacine sëy la tudd mhm. bi ma fa demee xamaate fa keneen ku ñu naan mama mhm. xam naa ni mama moo seetaan vidéo yi mhm. envoyé ko ku baax ki parce que ma damaa toog rek ñu woo ma téléphone bi ma woowee ñu jàmm sante dafa leb tur bi lebal naa ko ko ñu jàmm sante waxtaan laata loolu mu expliqué ma ni mu dooree xéwal gi li ma ci wax nag ku dul moom mënu koo xam li ma ci wax. waaw li ma ci wax koppar gi li ci newoon. Mhm. tur bi newoon ci enveloppe bi. Mhm. ak lépp. jottal yooyu moom kenn mënu koo xam ku dul moom. dëgg la dëgg la. waaw ndaxte nag bët du yéen waaye xam na lu bappantan te loolu yelloon na maanaa lim ma wax. lim la wax waaw. Mhm. te bi mu la wooyee. Euh, lim la wax ak som bi mu la wax looloo nekk ci biir enveloppe. looloo ci ne. looloo ci ne xam nga bi mu fi ñëwee waxoon naa la xaalis bu mel noonu maa ngi koy door a gis. waaye billet bu nekk dinaa ko compter. borom bu ma ko waxee nag. ma xam ni kii moo ma moom noonu la def. Mm-hmm. noonu la def waaw. xam billet bu nekk ñaata la. xam billet bu nekk ñaata la. xam la ñu bind ci enveloppe bi. li ma xamul moom sax xamal na ma ko. Mm-hmm. mooy somme bi lépp ñaata la. macha allah. wax la somme lépp ñaata la. waaw ma xam ni lii la yel na maanaam moo ko moom. Mm-hmm. mais xam nga loolu dafa jur polémique Saliou balaa may ñëw si mooy ko durant bi nga ko foree. sa vidéo tas ci réseau yi. dañ ci gis ay commentaires yoo xamante ku nekk daf doon jàpp naan bu doon man la dama koy daal di lekk sekk cest à mhm. ba jot li sax ñii naan la dof nga ñii di la féetal dëkkale foo dëkkul mën nga nan nga déggee genre kàddu yooyu noonu ba nga faral di seetaan mhm. booy feeñ ci di wax ñu lay déglu mhm. da ngay boole merci ak merde ñoom ñaar ngay yemale na la merde gën a sax merci ndax ki toog jàkkaarloog téléphone am moo am sa jot bala seetaan balay te maa ngi la koy wax ci tàmbali bi ba ñuy njëkk def émission nee naa la. Mhm. dégg naa ci ay wax yoo xamante ni ku ci ne nag li nga ma damay jàpp ne bu doon yow loolu ngay def dof laa bu fekkee for xaalisu jàmbur delloo ko mooy dof ci dof bi laay dëkk ñooñu koy wax damay leen di laaj. Mhm. bu fekkoon seen yaay ko waddal wala seen papa nu ñuy def. Mhm. très bonne question la ci Saliou. très bonne noonu waaye ci biir loolu noonu nga farat alal ji tax est-ce euh, euh, euh, ki nga ki nga xam ni moom moom moom xaalis bi. Mm-hmm. est que am nga yeneen appel yoo xam ni jot nga ko yoo xam ni ñi nit gën a la maa ko moom yeneen appel yooyu est-ce que am nga ko ci. waaw léegi léegi moo ci mujj. Uh-huh. jot naa trois appels. ñu ne ñoom xaalis bi. ñaan na ma ne moom xaalis bi dañ maa déclaré xaalis bu réer te ni ñu wax ak man xam naa ne ñoom seen xaalis réer ndax kenn ki dafa maa xamal ni yaayam daa yoroon lu toll ak sept cent mille ci xaalisu CFA. Mm-hmm. CFA wecceeku ko waaye bi muy dem na dafa war di ci ndafam Mm-hmm. waaw am na suma benn yaay booy boo xamante ne dafa bokk ci groupe mooy ñuy dem màkk tamit. Mm-hmm. moom it woo ma ne dañ ko woo di ko déclarer xaalis ba da sax dañoo woote pour ñu ñenn ñi mun koo jàppale ngir dafa dem ba yoratul. est-ce waaw te yenn na maanaam kooku du waxantu. Mm-hmm. waaw mais am na si koo xamante ni woo na ma léegi di ma waxu dof. la waaye wérul daal. <laughs> foo nekk ma fekk la fa ñu waxtaanee ma wax la ni mu demee woon mu doon ci sutura. ñaata moo ci ne mu ne fàtte na ko. Ah. wax jooju wér. <laughs> loolu du waxu nit. waaw du waxu nit moo tax nag <laughs> comme man dof laa xam naa ne man dof bi la ko wax. Mhm. Mhm. Mhm. waaw. est-ce que gars yi duñ dem yow ba jàppee leen ramasseur d'argent maanaam <laughs> <laughs> am na sama benn sëriñ boo xam ne ma koy nuyuwaale sëriñ Mourtala lañ koy wax Mourtala Jaxate. nee na ma Paga yow am nga wërsëgu for. waaw. parce que li ngay for moo bari. dëgg la moom ba mu ko fu mu foree. Oh, waaw waaye ma ne ko li may for yëpp nag mi ngi dellu te kenn mosu koo yëg lii li tax dellu woon te ngeen yëg ko mooy dafa amul woon numéro su amul numéro damay woo borom ne ko foo ne ma jox ko du am sax kii waaw dégg naa sax ñu naan bës a bëgg dëgg la am na ko am na ko commentaire ni nii man ñoo bokk la mel commentaire <laughs> xam naa ko xam naa ko bu baax mhm. baax dama ko ne ko Ibrahima sa ak yàlla mu ne ma billaahi bi ma koy wax dañ ma wax loo rek mhm. su amul yàlla naa faatu mhm. barke Cheikhul Khadim li muy wax wéerul ndax ban jot laa am ñëw di wax loo xamante ne amul man kilifa gu toll nii. Hmm. may wax ñu may déglu même bu fekkee sax trois personnes ñu may béggee chaque jour cant bu ma dem dina am trois personnes yu may bégle. Hmm. loolu jégalu suñu borom la. dëgg la. yor micro di wax ñëpp di déglu. Hmm. lu ko la ko suñu borom di jégalee. te sëriñ mi defal na ma ko même bu dee ñaari personne ñu ngi may béggee si cant gi. kon am na ci loo xamante sama koy mi ngi noonu. Mhm. Euh, nga for xaalis bi. Mhm. Euh, ñu bari daal di yéegal som bi ñu si bari daal di waxtaanee som yow xamu woon man mi la doon def interview xamuñu woon mhm. ñu aj baar bi ba ci trente millions. est-ce na foofu ba la borom wooyee. waaw yeggul foofu. yeggul foofu. sax ma ma mën a firiwaale parce que sonn naa dal. waaw ci trente millions yi. trente millions dégg naa ko na ko ñëpp xam daal parce que sonn naa diggante démb ak tey sonn naa. mais ak tabaski bi nii xam naa gars yi allo man xar. min ni loo xam ni yaa ko moom xam naa. billaahi wóor na sëñ Tuubaa dina garabu nalaw nalaw. <laughs> yeewu xalaat ci xaalis bi xool noo ci doxalee. waaw borom faalewul xaalis bi. Mm-hmm. lu ne ngay dégg ab naar la woon sax lu ne ngay dégg. kii dof la lu ne man démb damay ree ree dama mbégte daal ba sëñ Tuubaa jàngat rek laa ci jëlee. tey rëccoo li nga ko delloo. bu xalaatu bu wootaatoon tey ma falaat noonu demee. billaahi mais ba nga ko yóbbee defe naa ne am nga ci yow tamit lu tax loo xam ne peut-être kooku delloo na la njukkal ne la am teel lii. waaw delloo bu dul mooy kóllëre bi mu bëgg fasalante ak man kóllëre ndax doo xool tey xool suba lii ñëw. Mhm. am nit moo gën am alal. dina bari la te tedd nit ñàkk te tedd. Mhm. Mhm. waaw loolu baax la. bi ma ñëwee na ma teral ma bi may ñibbi mooy nit. gor ku ko teral yaa ko tëral ku ko toroxal yaa ko doxal. Mhm. loolu am mhm. nga for xaalis bi. <laughs> tey xaalis bu bari polémique bi réew mi bari. Mhm. ñii naan dof laak. ñii naan noo sa tekki laak ñii naan noo xàllu junne laak ñii naan noo buñ bokkoon kër dama koy rëndeeg. xam nga xeetu commentaire yooyu ngay gis. yaa ngi comprendre. Mm. ba pare ay jullit di ko def. ñu bari neen dootul tekki sax. ñu bëri naan dootul tekkiti mm-hmm. ñu bëri naan boo fi yoretee cek cek nekk fi nangam nangam dañ def nangam nangam xam nga. Mm-hmm. nan ngay déggee genre commentaire yooyu ñu ni ñu réew mi réew mi jullit te ku for da war a delloo. waaw dafa am nag app donte sax dafa am app. Oh, nee nañ la boo demee ba nangam nangam war nga ko mën a jëfandikoo. Mm-hmm. waaye for boo xamante ne matugul sax 3 jours 4 jours ñu ne da nga jëfandikoo. yow wax naa la. nee naa la fi ma ko denc. te loolu laa jëloon décision bi wax di waxaat sax day mel ni wax naa la ay yoon yoon yoo xamante ni barki Serigne Touba Mbacke li dugg leen day wadd ma for ko jox la ko ci sutura soxla ma ci dara. Mhm. man Serigne Touba mi may mhm. mhm. maa ngi sant Serigne Touba. dëgg la te billahi ni ma gëmee ni lii ñëw a dàq lii sax gëmee ngi yooyu toog doon wóor na Serigne Touba. mais Pape Gueye daa mel ni euh, euh, euh, wax nga ko sa biir wax sànq. Mm-hmm. mu mel ni dangay ngay yëngu aussi ci wàllum zikurla. Mm-hmm. tey jii nii zikurla bi lan la def yow. sellal jubal leeral bañ lu bon bëgg lu baax daw seytaane topp Sëñ yi baax baaxal. Mm-hmm. bi ma doonee Pape Gueye am na ci sama xarit boo xamante ni mës na ñëw ni sama naa la bàyyi di la ànd ak yow na ma ko wax. Hmm? ndax lan. xam naa rek. nit wax la loolu. barki Seexul Xadim ni la. sama yaay nee naa bàyyi di ànd ak yow ndax yow doo sama nawle. est mhm. ndax rek yii fu xale rek ku ne jaar nga ci. Mhm. waaw ku ne jaar nga ci yenn affaire yi waaye fexe naa ba doo dégg pàgg yi ci dara. Mhm. waaw ba ma fekk dama nga la sama ne su ma jàppanteeg Saliou sax di xuloo. moom moo jógee fee di ma àtt du ma àtt sama nawle la. waaw jàmbaar dëgg mooy ku ñuy tooñ mu mun a baal mu mun a fay jéggale te yàlla rek tax. sikar si nag dafa tax ma xam lu bari Pa Gueye kase kenn considéré ko woon ba ci sëriñ bi jëlee galon zikrullah bi dolli ko ci ci lañ ma nit ñi sax xaw a xamee mhm. waaw te ku ñëpp di bàyyi xel foog nga xool yoon yi ngay dox ci laa commencé saytu ak moytu mhm. di mbapat nag di dem ci cant yi di sikar fu na laa dem di sikar mhm. waaw dëgg la est-ce que nekkul tamit sikkar seek ak ngay moytoog noonu taxul tamit nga bëgg bëgg loo xamante ne da nga ne wax faa ma delloo xaalis ndax wax dëgg bu na nu mu di toogaale de li nga wax dëgg la nit tam da ngay da ngay da ngay defar mhm. nit da ngay defar da sa bopp daal mhm. waaw daal di moytu waaw daal di moytu maa ngi la xool ne la ku ñëpp di bàyyi xel da ngay da ngay xool yoon bu baax yi ngay jaar mhm. parce que nag dañoo nekk ci réew mu yéeme gaa yi gis safaan tas ko moo gën a yomb ñu tas say lu baax. Mhm. xam nga ndax ma. bu baax. moom moo def ci leen lu ñaawteef ñu jël ko tas ko moo gën a gaaw mu def lu baax day def mille lu baax bu defee tey benn safaan. Mhm. fàtte nañ millions yu baax foofu lañ toll réew mi. la. yàkkante bi yow gisoo. Mhm. dafa bari. yow wóolootoo sax sa sa sa xarit ba nga xam ne mi ngi yéen a ngi doon foowandoo di àndal moom. yooyootoo da gis sa xarit ci lii nii maa ngi ciy jàngat ñu bari am ñoo xamante ne bu ñëwee ba ci pàgg yi ñëw ne ko non dof li nga def moo yoon de. Hmm. nii rek la bu ma ko wanee ginnaaw mu ne booy bi moom man booy bi fu mu jaar bu ma fa jaarati. dëgg la affiché inde dawal ka booy. Hmm. dafa koy waar hmm. lii nag jàngat rek ci jëlee. jàngat rek waaw sama papa mi ma jur dana ma pàggay maa la jur la dama laa gën a nawaat. su ma yaay ne ma yow boo ragalee rek da ngaa yëpp yàlla. di am lu baax waaye loolu yoo ñaan yooyu noonu nag. ëpp lii nii lii may delloo. dëgg la ah, mi ngi noonu. Mhm. sa papa ne sa yaay daa kontaan ci yow sa papa daa kontaan ci yow ku la tëkku ñaanal ko. Mhm. loo bëgg am neel di ko am ndax sa papa moo di ko am loolu bu la doy looy doy. Mhm. ah damay laaj. dëgg la mais Pa Pa Gueye dañuy gis ni yaa ngi def say verre. def sa lu rafet macha allah. comme ci domaine ba tey bi nga yëngu fa laay nekk euh, di wax. Euh, gars yi ñu bëri gis nañ leen su fekkee wàllum si kurlaa bu ñu nekk boo fa léegi gars yi sax maanaam dañoo dem ba ba ba fulaalatuñ ko parce que dañ naan ndox gi bari na faak mànd gi bari na faak euh, ñi koy jiital sax defe naa ne euh, ñoo ñoo ñoo koy def est-ce que tey jii nii loolu yow da koy dëggal mooy zikur laa bi nga def. waaw des loolu moo tax gars yi léegi bareetuñ fa. Mm-hmm. maanaam dañuy am fu ñu leen féetale mànd gi dafay bari tox yàmbaa bi dafay bari. Mm-hmm. waaw est-ce que loolu da nga koy confirmer yow. xaaxamoo nit booy dem bay gis ci nit safaan rek mooy yow boobu nga boobu noppee bon baax. Mhm. waaw. nit da ngaa war di gis nit lu baax. ñu mhm. xool ci nit lu baax. mais boo gisee ci moom lu bon. boo demee di ko xool Cheikh Modou Kara maa ngi koy siyaar di ko ñaanal yéen gi moom liggéey suñu tubaab yéen gi toll yàlla na ko kattan bépp ak mën-mën mhm. ne boo gisee lu bon sax da nga naan da koy nduru waaye doonu ko. taxul nag ma ànd ak ñi nga xam ne dañuy mbubboo Baye Fall de dafa am Baye Fall ak Bayil Fall. Baye Fall mooy ki nga xam ne day ñàkk ñukki ñoqet joxe boole xeet kooku mooy Baye Fall. Mm-hmm. ki bàyyi lépp faale yàlla. Mm-hmm. am na si ñoo xamante ne nag seen baayu bopp la de. Mm-hmm. ah. yàlla moo njëkk bëgg ku set. booy dugg ci julli ji jumaa jàkk ji julli ji da ngay sol bi nga gën a bëgg. jàpp ba sell la. xeeñ lu neex. set ak sell dafa bokk ci jaamu yàlla. dëgg la man ni nga may gisee damaa mën napp cant de. waaw cant bu may dem li ma gën a bëgg laaj dama mën a sañse. Mhm. li ma gën a bëgg laay sol su ma demee bi ci njëkk mooy gëdd gi ñu ma jox rek leneen la mhm. am na koo xamante ne mi ngi dégg paagay li muy sikar neex na ko trop waaye mosu gis paagay bëgg na gis paagay bu koy xool ci ban melokaan la koy xoolee mhm. dañ lay naw sa comportement loolu nag maa koy soññ ñëpp dafa rafetul nga war a ñëw ba ci cant sol sa te sa tak sa jiin ñëw ba ci cant gi moomoo génn àll benn jàllaabe nga sole ko ci biir kanamu nit ñu rafetul dëgg la image day dem day wax te nit loo fi def tey da ngaa jàpp ne nga ko def boo faatoo day génn. Mhm. waaw billaay. dëgg la image day wax daal. Mhm. waaw. ayca mi ngi pàcc la boo xamante ni ngi si doon jaaree nii rek ndax wax dëgg fa yàlla nag mm, yemul bi mu faree xaalis bi kese. Mm-hmm. peut-être turu yàlla yi muy tudd bokk na ci li nga xamante ni nag mm-hmm. euh, dafa tax mu gën a delloo loolu nga xamante waaw def na ci moom lu baree baree baree baree bare exemple la boo xamante ni wax dëgg fa yàlla euh, mën na mën mën na ci mën na ci kii ci moom lu bari mën na def ci moom lu baree baree baree baree bëri mm-hmm. pàcc la boo xamante dañ ko doon waxtaanee da nga fi ñëwoon borom xaalis nga doon wóor borom xaalis bi di leeral di leeral euh, ni da nga for alal ju takku dem nga ñëw nga def vidéo bi Sunugal 24 jagleel na ko ay internetam ba ñooñu jeex borom nit borom ko borom indi ko si ay saytaan nga ñëwaat ah pour leeral ko Sénégalais yi ndax wax dëgg fi yàlla. somme bi ñu déclaré dafa bari te ñu ci baree baree baree bari man mii sax defaloon interview bi ñu ngi may <laughs> xanaa sama waay jox na la. jox na la sama xanaa dof la. <laughs> ay ma ay. <laughs> wool kook nga yedd ko ne ko mooy. wool kook nga yedd ko xaalis bi. man nag maa ngi nii maa sama waay. ñu ngi nii defal na yàlla jot na ca. ndeysaan ah yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla dimbali. mais retour bi nga am fii nii ba nga defee émission ban retour nga ciy gis maanaam émission bi ba nga defee émission bi ba pare. Hmm. retour bi nga xam ne am nga ko fii biir Sunugal ban. waaw gis mu yaatu rek gis sama bopp fépp. Mhm. waaw. gars yi ñoo woon ay liens yu ne parce que bu ngeen ko dugalee am na ñeen ak ñeen ñeneen ñoo xam te dañ koy jëlaat dugalaat. dugalaat dëgg la. Sunugal 24 la. billaay mu yaatu nag fépp. Mhm. barke Serigne Touba Mbacke. Mhm. te nag lu baax rek laaj ci doon jublu. ndeysaan wóor na Cheikhul Khadim ni ma la ko waxee rek bu wootaatoon tey ma faraatoon ko tey. su ma xamul boromam amul fu ma ko mën a wooyee wala fu ma ko mën a jotee. Mhm. fii laay ñëwaat rek ñu yaatal ko. dëgg la dëgg la mi ngi noonu. moo ci am solo. moo am solo ayca euh, daan waxtu bi daan nay jeex lan ngay tàggatooy. sonnal ci yàlla fàtte yàlla. Mhm. ndax léegi yàlla na am ngërëm la. damay tontuwaale. Mhm, waaw dañuy sonnal ci yàlla bul fàtte yàlla. Oh. ndax léegi yàlla na am ngërëm la moomoo mhm. mhm. ngir ci yàlla jar na nga jàlla mhm. ci bépp allah del jaamu yàlla del tudd yàlla léeg mu may la li fi fay la ñëpp jëfal la waaye Baye ku fàtte yàlla du jaamu yàlla. adduna war la te xeediñee la. ëllëg lu am la ku jëf ñu fay la. aljana ñee la bu dee lu baax la. waaye ëllëg lu am la ku jëf ñu fay la. Mm-hmm. safara ñee la bu dee lu bon la. bàmmeel lu am la mbugal lu tar la mhm. te wa tar na xalaat ko xeel la mhm. maam bamba jël nu lakk dëkkal nu mhm. médaille may nu nga neel ca yàlla lu la metti démba defar ko tey Mm-hmm. ngir boo bëggee suba mu jag. Mm-hmm. maa ngi tuub àddiyee Sëñ Tuubaa. ndeysaan ndeysaan. Eh. waxul am solo. billaahi nga tontu gars yi. Eh? Ah, tontu la lii wax la. moo tax ma ko waajal. dëgg la ñoo ngi fii dama ko waajal. <laughs> tontu rek a jóg. non non non ko tontu rek ma taxoon a jóg. mais paa ngi kontaan nañu. maa gën a am mbégte. wallaahi naa ak yeneen gars yi daal. ndeysaan. <laughs> damay lëkkale bi mos li ma war a wax maa ko koy jox. waaye wute naa ak yow. dëgg la sama waa ji Baye Sall. kenn yow yàlla nañu am jàmm. amiin waay. billaahi. Mhm. parce que réew mi moom réewu teranga la. dëgg la. te nag boo juddee sa yaay baax sa papa baax li la war rek mooy baax. waaw wóor na sëñ Tuubaa. Mhm. waaw wóor na borom Tuubaa. Mhm. ah liggéey nday moom añu añu doom rek. Mhm. dëgg la parce que day baax nit ñi xam ne ñii baax a ngi baax ñii bon a ngi bon. parce que dem nañ ba milieu bi may liggéeyee muy livraison. cek cek. yi seen gën gi ñu leen war a jox joxatul leen ko. dëgg la maa ngi saare waale nag suma benn doom bàyyi. soxna Thiam. Mhm. barki démb la ñu xamante bi may dugg si kër gi dana ma eh duggal fu la neex cag-cag mosu fi dugg mais yow yaa fi dugg ndeysaan mhm. bu barki Serigne tubaa di ma vidéo naan ma yaa am valeur dëgg la kontaan naa ci yow ma xam ne loolu mbégte la te nu may jural leneen loo xamante ne ku ma wóor damay gën a wóolu fu ma damay buntu day gën a ubbeeku dëgg la xam nga mhm. adduna doo xool tey comme li ma la wax da ngay xool suba li war a ñëw te tubaa Touba tayam junne day gàcceel démb dëgg la am na fay bu la fayee rek nga fayee. mi ngi noonu ndeysaan walaay ndeysaan ma nga noonu. ayca loolu la ngay tàggoo. cant ak ngërëm day daal di ñeel yéen ñi nga xam ne a euh, la hmm. euh, euh, nee naa la tamit hmm. ma naan biir Sénégal sax ma mën a ko <laughs> monde yu mën a ko maa dox dama tàmbul <laughs> mais di koy jaajëfal bu a baax nee naa leen livreur yëpp bu ñu meloon ni moom hmm. wax dëgg fa neex yàlla ñëpp wóolu ñëpp parce que tey jii ni gis nañ fi forcément ñoo xam ni dañ leen di jox valeur de ay million yu millions livreur yi sama ko livreur daw. dem euh, euh, waaye doon na ko nga xam ne ku neex a wóolu la doon na ki nga xam ne nee naa la euh, fi nga fi nga teg sa tànk noonu la. Hmm. macha allah àdduna dara nag. tey mën nga ko jëloon sax doo ko jariñoo suba nga jël la di ko jaajëfal baax a baax a baax a baax. Hmm. ñu gën ko xam ci baa ngay zikru laa am mbégte ak contentement bu mag a mag. Hmm. di leen jox dig daje nag ba beneen yoon incha allah mu ngi di la bëggee. ayca mi ngi noonu kontaan continuer mer maîtriser moom mooy suñu Gal de notification dugg rek mu daal ni teng daal lay mën a dal euh, Sunugal 24 di leen ko bu baax a baax a baax mën ngeen ñu topp nag suñu ay page la ci mel ni Facebook ah, ña nga fa lu ci mel ni Twitter ak feneen foo leen bëgg nag wax dëgg fa mën ngeen ñu fa topp suñu page bu yanj bi ah, direction 1 million di leen baax a baax a baax di jaajëfal ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci xarale gi euh, di Mansour wax dëgg fa comme ni ma koy daal waxee rek bu moom la m image bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax dig daje ba beneen incha allah ak beneen invité jërë ngeen